mais aussi ngeen permettre ma tey ma defal mention spéciale à ma commune qui est la commune de Thiès Nord à mon maire le jeune Massamba Diop déjà dans commune de Thiès Nord pourquoi je le dis parce que masse dafa jóg te boobu jóg dafa jot dugg ci gox bi dugg ci quartier yi wax ak askan bi dénku leen kàddam askan bi toog di ko xaar bu def ko le maire de la commune de Thiès Nord Andoy Fall. Et monsieur le président nous prenons ici solennellement un engagement parce que ñun waa Radar ñun du ñu caaxaan du ñu fo du ñu bokk ci défaite que ça soit très clair dama ni kuy ànd ak président Habib Kane doo dellu gannaaw doo am défaite doo ñàkk. moo tax ñun ci biir ñuy waxee nous sommes déjà dans la peau de gagnant jàpp na ni nous avons gagné les élections locales xam ngeen lu tax nous avons les meilleurs profils aujourd'hui ku am un président bu mel ni président Thierno Alassane Sall dama ni amoo looy tiit amoo looy yofi-yofi également un compagnon, nous également le président du radar, le président Abib Khan, qui a fini de sillonner également les rues de Thiès par des financements, des formations, du et j'en passe. Damani, xam ngeen li ci des mooy lan suma frère Mass wax na ko sànq te loolu moo ci des la ñu wàcc ci terrain bi defanteeg ñoom parce que nag wax ji dafa jeex teg xam nga man quest que je l'opération avant midi parce que avant midi war nañoo taxali ko ak ñoom encore une fois maa ngi leen di gërëm di leen sant di mu doon également rendez parce que ñun aussi ñun aussi au niveau de radar dañuy nekk ci terrain bi parce que xam nañ terrain bi nous connaissons Médina Fall nous connaissons Daxi Kaw nous connaissons également toutes les tous les quartiers de la commune de Thiès Nord parce que nous avons l'habitude de les sillonner de les appuyer de